alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah asbillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa radiallahu taala an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim yaa himmati seyxi uxdur lana baytal maadari wal taatufi bi nasratin tatna bi mbokki Malben ñu ngi nuyu ñëpp day siyaare da ñaan dërsu bi fekk leen ci jàmm euh, tey jii nag kon wolof ne euh, li xew di njàmbat li tey mooy aj ak tabaski bi muy feet boo xam ne feet bu rëy la Euh, léegi nag feet bi dafa nekk feetu fàttaleku lu ñuy fàttaleku mooy xew-xew bu nga xam ne mooy ci xewoon ku ko sunaaloon mooy suñu baay Ibrahim lu taxoon mu def ko mooy ci la doon reye doom ji mu rëcc yàlla jotal ko ko euh, ci jot boo xamante ni jot bu rafet la waaye nag mboolem loo xam ne mooy xisa ci xisa yi daf ñuy jàngal xisa luy ñëw ci kanam ak xisa boo xam ne xisa continuité la waa njëkk mën nañ cee jëriñu waa mujj mën nañ cee jëriñu ba ba ñu demee àllaaxira loolu mooy sababu ñu bàyyi fi xew-xew yi nga xam ne xew-xewu euh, lislaam yi la bokk na ci gën a màgg mooy euh, tabaski bi ak euh, li ñu wax gàmm moo kii la kii aj fekk nañu fi ay yoon yu bari ñu ngi ñaanal yàlla yokk ko muy yoon yu bari ñu ngi ñaanit képp koo xamante ni yaa ngi koy seetaan Euh, ko dem yàlla demaat ku demut yàlla ko yàlla yóbbu màkk kon nag ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla def ñu jàmm euh, léegi nag kaw laa ngi xewee ci tabaski tabaski ku ko jiit su naaloon mooy suñ maam Ibrahim waaye boo seetee boo gisee nitu yàlla yi xaarifine yi seen yëf moom dañuy ànd ak waa biti jël li wàll ci biti dem ci biir jël fa wàll woo xam ne ko dem ca biir doo ko jot waaye buñ seetloo tabaski ñu ne bés la boo xamante ni buñ dikkee dañ ci goreel ay junniy junniy bakkan teew boo xoolee da gis ñu rey ci ay junniy junni bakkan waa kon nag lan moo ci indi ñu rey junne junne bakkan goreel ci ay junne junne bakkan moo tax mbir mi daal dafa soxla seetluwaat ñu seet nag Ibrahim mi ko sunnaal dafa am lu mu bëggoon mooy Ibrahima ba mu demee joteeg ñi xam ne ñoo jaamu xiram yi ba toj xiram yi ñu joteeg moom mu rëcc mu dem fekk ñay jaamu weer jant biddiw ak weer ak jant loolu xaari fi ni nga xam ne xam ne li nga xam ne saahir mooy këram yi ñi nag mooy xaqaayiq yi léegi nag mu dem ànd ak ñay jaamu biddiw wacc leen fa ndax xam ne li nekk dëgg mu dem ci ñay jaamu weer wacc leen fa xam nekkuñ ci dëgg mu dem ci ñay jaamu jant bay wacc leen ba Ibrahima noonu la demee nag ñu jël ko sànni ko ci sawara wa bu génn ci nag ba mu demee nag wéetaay ba yàlla may ko doom fekk na am na téeméeri at ak ñaar fukki at am doom kon yàlla Ibrahima dàqal na ko zaahir dàqal ko baatin ndax nit ñi bari na ñoo xam ne bañ dàqee ne dara amut bañ dikkee dañ gëm xaqiqa xaqiqa xaqiqa baa kay baal leen yàlla Ibrahima jàngal nañ ci bés bi jàngal nañ ci doxalinam ne xaqiqa duñ ñu koy jaamu dañ fay jaar nag pour seet la fa nekk ba xam ko ñu teg ko fa kon Ibrahima jàngal nañu loolu ba mu dikkee nag ñu jël ko teg ko nattu faal nattu ba dafa xam ne kii jàll ci nattu ba yàlla mu traversé ba tey romb natt yi yàlla def nag masta am doom mu nekk mag nag am téeméeri at ak ñaar fukki at masta am doom jabar ji am juróom-ñeent fukki at bu sigal masta ñoo am doom léegi nag yàlla may ko doom bëgg-bëgg doom dugg ko te yàlla bëggul nga bokkaale bëggul bokkaale yow sa dara rawat na sa xol bi nag pour bëgg nag yàlla génne bëgg doom ci xelama euh, mu daal di war ko ne ko mu daal di gént gis war ko ci gént ne ko reyal sa doom ci ba ko defee mu ma day gént naa bi ah, ma di la ren di yàlla moom jox digal pour ma ren waaye dafa am lu ci bëgg lu sew luñ ci war a dégg maanaam ba wax ko yaay ji yaay ji d'accord ci moo tax nit ki war nay fexe yar boppam yar bakkanam yar ki nga ni mooy mësara mooy yaayam mooy képp koo xamante ni mooy maanaam soxnaam bokk mooy àndandoo bi kon yëpp war nga leen yar ba lépp loo bëgg rek ñu bëgg ko Ibrahima ba mu ko waxee doom ji dana ko fafal ma tuubaru defal la yàlla sant ren di jël pàkk ren loolu kon nag ñu ngi ciy déggee ñun dégg ndigal lu sa bàyyi ànd rek wala ca ànd <coughs> kon Ibrahima is doom ji ànd nag ñu ne Ismaayil ca moo gën a wér mu ànd ak moom ci mu rey ko Ibrahima nag doogu ci rey ko daal ko doom ji ko man xam naa ne danga may yërëm dama bëgg nga takk sa sa bëri ba mu sax xool ba may rey na na dee rek ci ci dogu Eh, ba ko defee Ibrahima eh, daal jël doom ji de ko rey ba mu koy rey nag moom nit ma nga gis ne doom ji lay rey te ba mu jareyee kuy la rey ba mu reyee gis Ismaayla nga taxaw ci côté waaye loolu kenn ku nekk ñun xaarif war na xam ne ba mooy rey bakkanam bi ba mu ko rey bakkan bi dem fenn moo fi nekk ba tey loolu kon. jàngeekaay la waaye nag ñu jël ko nag ñu ne sunna la léegi nag bu ibis ba jotee ah kenn kuy jullit mu rey tabaski waaye kon tabaski kon lii kay dëgg-dëgg li ko yàlla wax ne lan yanaala laaha luhuumuhaa wala dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu at-taqwaa minkum yéen nag seen xar yi ak deret ju jë ak der bu rafet ba aw ma soxla li ma am soxla mooy taqwa min kum ragal yàlla gi nekk seen yéen laa soxla kon ndeke yaa tabaski lu tax ñu koy def nammaat maanaam goom ferewaat sa ragal yàlla moo tax da ko ragal yàlla gi waxtu ne da ko war a gën a goom ferewaat mu gën a ragalaat yàlla kon nag ngay déglu ci ñu ne rafetal leen seen tabaski ndax moom ngeen ne war bu yomal xiyaamee moom ngeen da pour jàggi si siraat waaye foofu xaari boo gisee moom luñ ko wax daf koy seetaan waa léegi nag boo dundoon fanweeri at wala ñeent fukki at wala juróom fukki at at mu ne nga lay tëbës sa xar nekk juróom fukki xar te yow ngay kenn noonu leen def noonu leen reyee noonu waree ah da ngay nekk juróom fukki xam nga xam nga loolu lu mat de seetlu la waaye xam nga xise yi nit ñi dañuy dégg xise yi ba waxtu duñ ko seetlu waaye boo seetloo ci suuf danga nga déglu yàlla wax nga xam ne ah wala ke ñu a taqa kon ndeke yàpp wa du ci la am soxla waa ragal yàlla gi ci yow kon ndeke ba nga seetloo yow nga jël si tabaski bi yow sa bopp lañ la wax ne waxul tabaski yaa ngi waaye maa ngi lay joxal joxal na ne mooy reyal si nafsu ndaxte ah nafsu bi moo amee jikkoy xar kon nag jikkoy xar lañ bëgg nga rey ci yow du tabaski lañ bëgg nga rey rek dañ koy rewoon nag il faut ñu def tabaski ba pour wan na ko ceeb waaye jikko yi ci yow lañ bëgg nga rey loolu tax na yàlla kon aw ma soxla ceeb taqwa bi mu la jëral moo moo tax léegi nag kon ndekke kon fanweeri xar wala ñaar fukk wala juróom fukk yi nga rey ndekke dangaa war a taa yoo reyee nga yëgoon ne sa degré ngëm gi mi ngi ci deux wala trois mu ngay augmenter ba dem ba ci vingt ba ci vingt ba ci trente ba ci ngëm yàlla gën a bëri ay point kon nag ku la gën a bëri ay point moo la gën a suuram xar moo la gën a am waruwaay wax ne moo la jàlle ah yoomal xiyam kon ni ko tabaski ah mi kaa xam ne tabaski neex dagan du kon Ibrahima jàngal nañ ne kon nag yàlla waxal nañu ne kon nag ragal yàlla gi lay tabaski moom laa soxla ceen waaye du yàpp yi kon kon ñu xam ne kon ndeke bi la tax ñu koy def pour kon nag rey sama bakkan bi dama ko rey woon démb bakkan bi dee dafay feebar taa yu nekk nag nga def ko ren gi pour confirmer li nga xamante ni mooy li amoon mooy rey bakkan waaye bul fàtte nag day ne tabaski kat ñetti ñetti lañuy la ñuy tabaski xar béy nag gëléem du ñeent kon dafay fàttali ba tey xaarif moom buy rey dafa fexe moom ñeenti ñeenti tabaski lay tabaski ndaxte ñu ne waaw lu tax kon nag ñu ne waaw lii rek la ñu wax nañ ko tabaskee muy xar luy xar muy bëy luy bëy muy nag luy nag muy fas luy luy muy gëlëm luy gëlëm xam nga xaalis moom dégg defar rek dana daanaa ko def waaye ba ma ko defee nag lu ma jirul yàlla ba ñu ko ko laaj loolu ah, ndeke kon xar jikko la jikkoy xar lañ bëgg nga rey ko ci yow jikkoy xar mooy la tayal yamar àdduna ku ko bëgg a lijjanti yaa xam gi góor la wala jigéen la koo bëgg a lijjanti àdduna il nga am activité sawar waaye xar nga xamante ni lekk naan tëdd ci buntu borom buntu kër borom sax bu dikkee du wat man nañ koy dàq wala du jox te dal def dara jikko yambar jooju la ñu wax ne nga rey ko ñu ne seetal li lay doy waar la xaar nag rëy rëy la gëlëm di rëy rëy xara ko gën ci tabaski lu tax loolu xam nga nit ñi dañu la war a seetlu waaye loolu loolu lu mu jëriñ lu tax kon nag jikko ji nga xam ne moo gën a garaaw ci jikko yi xam nga bu jikko jooju deewul jikkoy xar bu deewul jikko yi ba yëpp jikko yëpp du am kon nag ñu ne rey xar moo gën lu xar léegi kon nag loolu lañ ciy dégg kon nag ndike jikko ji moom laa war rey ndax nag ma am jom nangu liggéey de daan doole dama la jëriñ dama la jëriñi lii kon nag ji koy xar lañu wax ne kon lan lañ lañ la ci xar rek waaye waxuñ nga rey xar rek yàpp aussi yow ah, léegi xar moomu kon nag yow yaa ko moomoon ci sa bopp nga kay lakk ko benn bés rey ko benn bés li ko lakk da ko def yëpp nga ànd see da ko da nga fàttale ko ci ne kon nag ndeem sama man maa moom sama moomel def ko nii rey ko taal taal bi da ko lakk di ci yëy di ci force di wax samay njaboot yàlla mi ma mi may man ma nekk sama jaam bi ma def nii man jaam bi ndax yàlla moom maa def li ma liggéey sa xel daj ko bu ko rey rey yow yaa ngay indi après waaye yaa ngi jooy kon jikkoy xar lañu wax na nga koo rey lu ci tegee ñu ne béy béy lu muy tekk xam nga boo mën a liggéey loo mën a mën a liggéey te mu mën a yàq da ngay dégg boo demoon ci tool yi ngay xam ne te béy yaa mën a yàq ni béy béy moom boo ko seetaanee tool yépp mu yàq. kër gi lu moom day yàq li ci tool yi ko de dikk nag loo denc ci ki mu daal ko lekk ah kon nag jikkoy bëy li ñu wax mooy jikkoy mën a yàq soo reyee jikkoy xar ba mën a am activité ba am dara fi xel bu ko yàq nag ndi bëy kon jikkoy mën a yàq nam ta dos ki bëy mii la muy tuut tuuti moo gën nag ah gënal xam nga léegi bu doon ci xel rek da nga jóg bu doon xel kon da nga day wax ne waaw lu tax boo amoon kuréel nag nekk ko rey ñu ne rey bayil moo ko gën mooy kon nag jikko ji kon nag léegi nag su fekkee ne yàlla dimbal na yow nga mën a rey jikko yi xar am nangoo liggéey am bañ a yàq léegi nag jikko yi nag mooy jikko nag mooy fëkkale ñaaw bëgg bi maanaa ma boo ni ngay uutee alal bul ko uutee uutee ni ñaaw bëgge sorut bàqara bi nga xam ne moom nekk nag man nga ko sàmm ngoon ba suba jën jën so ah su ko defee buy dagg rek dem ci toolu jàmbur yi yàq yàq yooyu nag lañ wax nga rey mooy mën a yàq te loolu xam nga moo am ci ñun jikko yi nag moom tabaski nag mën a yàq nag ngay sàmm suba ngoon jot buy dab dem ci toolu euh, jàmbur yi kon nag nañ fexe tabaski ah tabaskee nag mooy ñaaw bëgge ak mën a yàq lan mooy gëléem lu tax ñu ñu ne gëléem a gëléem mooy rëy ji koy rëy gëléem dafa rëy moom foog ne moom ponkalaam bi tax na moom faalu kenn moo tax nga gis wa isaa xiilum buñ koy rey moom dañ koy euh, force mu toog góor buñ koy euh, rey moom buñ ko reyee nii tër dañ koy jam ah li nga xamante ni mooy ràbb bi mu jàll fële ñu bàyyi mu daal kon nag gëléem jikkoy rëy na kon nag ñeent yi xaarif moom bët bu set mu set bu xëyee waaw tey moom jën jikko moo saqi ko yi bu jikko xar saqee mooy bëgg a tayal ne toogal jaru ngay di liggéey mu rey tabaski mu tabaski ko su amee alal bakkan bi ko yàqal mu rey taba mu rey ko suy ut alal ba koo ñaaw bëgge bakkan mu daal ko tabaski soo rëyee nag da nga ma am bay bëgg a ci tër mu daal kon nag aari moom dafay tarbiya kon nag ndekk tabaski yëpp kon tarbiya léegi nag <clears throat> kon li ñuy rëyee fii ci Sénégal ñu ngi ko tuddee tabaski xaarif nag bu demee nag mooy ki nga moom dem na ponk islaam bi ci mujj mooy aj mooy ci lañ toll léegi muy aji màkka lan mooy aj ndaxte ponk lislaam juróom la aj moo ci mujj aj bii nag kon ndeke ña doon ci ëwlu ak ña ndox ci aaxru ak ña ndox ci saayru ak ña doon dox ci baatunu ñoo dikk fii ci ji day daje fii ci pays bi nga xam ne mooy payu naasoon mooy ponk juróomeel kon nag yowmal hajjul akbar ñépp daje nañ tey kenn mànkuwul moo tax boo demee ci miiqa yi ñuy armalee pour yu wër màkka ñi bàyyi ko Sénégal ñi bàyyi ko Misra ñii bàyyi ko Yemen ñii bàyyi ko Iraq euh, euh, dañ leen defal ay miiqa yoo xam ne fa ngay armé pour dugg a dugg si moo tax péeb yàlla bi dañ ko defal kon nag ñeenti armale kaay ci ngay mën a armale ñu duggee ci buntu euh, lu bootu jaare fa ci ulooyatu ñu jaare fii ñu jaare fii kon kenn ku ne dafa am ñu la jaar saaba yi fi lañ jaar asbaabu wilaaya fi lañ jaar asaabu xilaa fi lañ jaar kon kenn ku ne dafa am jaareekaay yoo jaare pour dikk ci kaaba kaaba googu nag <clears throat> ah buñ fi dikkee moom ci la ñuy aje si ñu ne waaw lii bii ah munum tudd ñu ne kaaba néegam yàlla bi ah néeg boo xam ne boroom dëkk fi kenn mësu gis mu ne ndax fi kenn mësu fanaan kon la tax ñu dëkk ko kon dañ ko jël symbole la bu ñuy wan dara dëgg-dëgg ah ji eh, benn waay bi àndoon ak baay wa ahramtumu bil xajji eh, waramtu tarxuma siwaahu fa iraamun li saaka yu siiru benn waay ba àndoon baay mu ne yéen ngeen yéen day armal ngeen armal mooy araamal araamal lan mooy araamal naa fit dara am fit dafa amal leen yàlla mooy armal kon boo demee ba aj màkk nga summee ko sa yëre yëpp sol yëre yu weex tàll kon daf la junjal dara wooñ nga sol rek pour nekk ab alaaji wala ab ajaan daf la junjal aa ah, sawaay ana yëre yi nga ak Lagos yaag da maam euh, Popenguine yaag yu ma xamut ak yooyu yëpp ak euh, ki ma wax téere yëre na fe ne set fële yére bu tailleur ñëw bu mu fi dugg nga jël benn yére làmbaayoo fii jël benn te ci ah kon ñaar nga làmbaayoo ba ngay aj si yow ñaari làmbaay nga am kon nag làmbaayoo nga làmbaayoo biti ak làmbaayal biir mu ñuy fàttali ko yaay yàlla mu samilu ak yaay yàlla mu desiru yow borom làmbaay li ak borom jitlaay li kon nag péeb yàlla doom ñaari yëpp nga fi war a làmbaayoo làmbaayoo Muhammad jismu wal jismu amana ñoom ñaar ñoom ñaar nag ñooy wër xol bi ñoom ñaar ñooy wër xol bi yow nag ba nga dikkee nag yaa taxaw di wër yàlla na ne kon nag xajuma fenn waaye xaj naa ci nit fële loolu nag foofu mooy néeg ne mooy néegam yàlla ba dëgg-dëgg ah, kon nag boo armalee dañ araamal la lut yàlla ah, su ko defee nga dem nag boo demee nag mu junjël xam ne ah, léegi nag boo dikkee nooy def ngay wër kaaba ga juróom-ñaari yoon mu ne saaytum wa qabla sayi sayi tuftum bii bii wa ma sayu illa fi sifaati yaduuru mu ne ngeen dikk wër kaaba gi juróom-ñaari yoon kon nag juróom-ñaari melo yi nga xam ne moom nga meloxee pour war kaaba gi moom ngay ñëw nag wër ko ci melo ba ci melo deux melo trois melo quatre melo cinq melo six melo sept nga war ne kon nag juróom-ñaar yi yëpp laxasoo naa ko nekk na ci man loolu tax nga war ko juróom-ñaar yoon pour jël jël ci melo euh, kii bi pour mu jox la juróom-ñaar yi ndaxte waxam naa léegi juróom-ñaar yi ni mu nekkoon ci yow euh, buy ci biti ak ci biir juróomi adraat ak ñaari alam mooy juróom-ñaar te nag <coughs> bi nga dikkee fii yëpp a ngi fi ah, kon nit ki juróom yii ak saayiram ak baatam ba ko boolante mu indi ko juróom-ñaar juróom yi yëg bu dikkee ah wala juróom yëg-yëgi bitim lay jël wóoree ko kaaba gi juróom-ñaar yoon juróom yëg-yëgi biiram yëg yooyu su ko defee ak ay kanam ak gannaaw. loolu kon nag war na juróom-ñaari yoon ci saa bi nga mooy kaa bi nga xam ne mooy kaamu bitir su ko defee mu doon dem dox safa maro juróom-ñaari yoon léegi kon nag léegi ni nga gisee doon def sëyru ni nga defee ba ak da def sëyru loolu kon nag dem nga safaa bàyyi koo nga safaa dem maro bàyyi koo nga marwa dikk safaa loolu nag safaa mooy kan mooy pii melo yi marwa mooy kan mooy jus i kon nag yaa ngay waagal ci diggante melo ak tur yow xaarif lu tax ba nga ni meloo melexee ci yàlla nga meloo ko na dëggoo ci yàlla nga dëggoo ko moo tax foofu nga mën a sant nag kon nag yow sant ak jëf ngay defee fii du tant wax nag nga nekk naan laa bàyyi ka laaw ma laa bàyyi ko kon nag wuy si naa la fii lañ la oon wuy si naa la kon kaaba ga du ma la oon borom kaaba ga moo la oon nga ne ko wuy si naa la kon nag léegi nga dem dem wër kaaba ga juróom-ñaari yoon mu fàttale kon nag sa juróom-ñaari yooyu nga dem safa ak marwa ngay wëndeelu dem safa ak kon nag gis nga lii waaxu ci diggante safa ak ngay nekkee nii ba sa dund bi jeex bàyyi ko ci guddi dem ci bëccëg bàyyi ko ci guddi bëccëg dikk ci guddi gi rek ah, wa am lay tumoo fawqal mun naa Uh, uh, uh, ina fa in fahimtumoo wa araftumoo kun mun la dayka kasiru mu ne ba ngeen pare foofu nag xam nga boo doon omra boo doon boole aj ak omra da dangay ba ngay armal da nga xam ne boole ak ak omra waaye nag boo dikkee omra moom ci kaaba gi rek la yem léegi boo duggee kaaba gi war ko juróom-ñaari yoon dikk ci maqaama Ibrahima maqaama Ibrahima mooy moo nekk ci ganaaw gannaaw dëkkale euh, kii bi bunt bi maqaama Ibrahima man daqaloo kaana kon nag ndikkee ba nga waree juróom-ñaari juróom-ñetteel mooy maqaam Ibrahima nga dikk taxaw ci maqaama julli fa ñaar noonu nag fa yoon génnee dem safa nga dem moom itam départ safa dem marwa départ marwa ba juróom-ñaar ba muy ñaari yoon soo dikkee màq nga pare pare nga foofu foo cay teg miinam minan lu muy tekki ci arab mooy xéwal moo tax mu ne wa am nay euh, mooy mébét bi maanaa ah li euh, bu dee am ngeen dégg-dégg kon da nga dikki minan euh, ngoon jot su nag wa araftuhoo nga def ca arafaam nga dem arafaat arafaat lu mooy tekki mooy ñu ne mooy xa mooy xarafaat xam nga xarafa ak xarafaatun ndaxte xarafaat foofu ñi ngay xam ñëpp foofu nga leen di fekk ndaxte képp ay ujaay mën nañoo teqale ko fenn fu nekk mais bisab arafa moom kenn du manqué bisab arafa ujaay bu ko manqué rek amul aj moo tax ñu ne alxaju xarafa léegi yaa nga bàyyi ko makka dem nga Muna dikk Arafat Arafat mii nag ñépp a fee ne yaat nañ dañoo nag ndaxte fii dëgg-dëgg mooy ñu tax a jóg nag mooy pays maarifa bi fii nag lañuy ñuy xàmmee yépp ñu yend foo ngoon jot ah kon nag ñu xam nag lañu ñu fa taxoon jóg mooy borom Arafat waxtu yow ma sula saa bi Arafa askur rabbi sikra abdin arafa maqala ma tudd fi kooku foog ñu fàttali ko xam nga léegi <clears throat> ba nga demee Makka def mi nan foo ñetteel lu mooy arafa bàyyi nag ne moom bisab sulasa mooy bisab ñetteel ci la taxaw arafa man bisab ñetteel moom boo boo boo bal moom duggul dëgg moom waqaftu taxaw naa yow ma sulasa bi arafa ndaxte moom mooy njëkk ñetteelu ñetti place yu dikk Makka mooy nekk Mina nga dikki Arafa askur rabbi sikra abdin arafa maa nga fay tudd nag fàttali ko sama borom fàttali koo xamante ni ko waaju xam borom au mu ne askur laaha mu ne askur rabbi ndaxte xarafaat euh, payru payru bu la minan mooy firi munaa wala xéwal ji kii yore xéwal yi xam ngeen ko ci pays yi nga xam ne mooy pays yàlla yi moom wala xéwale baawaan yi nga ñëw nag Arafat mu ne moom dikk naa fa bérëb talaata ah léegi nag nga dikk foofu Arafat yenn foo ngoon jot foo musdalifaatun ah, fardi fii minu innahu bi sabti fu óoli aarifina yusiru ah musdalifa mooy isdaara foofu mooy firi temp jige si waat gënal jige gënal jige xam nga mooy ñeenti ponk mu ne nag kooku mooy musdalifaat mu ne tempal ah, nga jege si xam nga lum lay wan ne kon nag nekk kii moo ju moo raw mboolem kuy xaalifiin yi xaalifiin yi yëpp ki leen nga xam ne moo ci kuy xaalifiin yi ki leen jiitu mooy ki nga xam ne moo di kii mustalif mu daw jàpp dikk si nekk quatrième ah, place léegi nag mi ngi lay ñu ne ah waa ji daal ni moo njëkkoon xam nga Ibrahima moo ko fa njëkk a moo ko kon nag ka jiitu kan la mooy Ibrahima kon nag moo junji innoo bi sabatul aarifina waa ji moo jiitu mboolem aarifin moo tax waqad fuqtu fil irfaani man kaana ah, man laaj foo laa ci mën a yem nag waaw ki ki ne man maa sut képp ko am. mooy ki nga moo xàgg ci maqaam Muzdalifa ndaxte Muzdalifa mooy gënal jege si maqaamu xurub bi kon loolu la junj ah léegi nag soo bàyyi ko Muzdalifa xam nga léegi def nga Makka Mina Xarafa Muzdalifa muy kat fooy del saat da ngay del saat fii nag ndaxte xaw dem fi ba yaa ngi bàyyi koon sa bopp da ngay del saat sa bopp fii kat nga ñëw lii doy waar fii nag boo dikkee da fekk ñetti jamra jamra un jamra deux jamra trois kenn yaa ngi koy sànni nag yaa ngi koy foree fële ci Musdalifa fa nga fanaan ba nga doo ko doo ko dikk si ah, nga ñëw nag ba nga dikkee bii da koy romb bii da koy romb bii ngay sànni si xanaa xamu la ne ba nga dikkee yow de ba nga dikkee dara amul dafa am yoo romb dikkee ne amul dara amul am na yoo nga ne ah xam nga romboon nga ñaar waaye tax gisoo nga ñaar yooyu nga dikkee rek ah ñu ne moo tax yooyee dellul arrière la xam ne romb nga ñaar xamuloo ko ah su dee xam nga dëgg xam ne mos romb nga xamante ni mooy ah, xilaafa bi romb nga wilaaya bi doog a dikkee nag nga xam mooy patron bi nga ne ko dara nag nga dikk foofu boo sànni bii jamra bu mujj bi ñu ne demal nag rey sa demal nag rey demal nga del siaat nag kaaba war ko juróom-ñaari juróom-ñaari yoon daal di rey sa xar ajji moom li ajji moom li nga xam ne mooy kii bi programme bi jeex na ngay del siaat mi nan ndaxte ya nga sànni wu doon nga war a del si boo leen sànnu du baax ndax bàyyi dafa leen def si ay bun lil fu aada ay bun li roy ibun kon nag sa bakkan bi am na sikk lil ah, fu aada xol bi am na sikk roo am na sikk ñetti sikk yii nag doo leen indiwaale da nga sànni fële ca màkk su ko defee nag nga del saat boo dikkee yoonu njëkk yoonu yoonu ñaareel bi ca suba sa dangay sànni fii juróom-ñaar sànni fii juróom-ñaar sànni fii juróom-ñaar dem sa dal ba tëdd ba suba si nga dikk sànniyaat juróom-ñaar sànniyaat sànniyaat juróom su la neexee mën ngaa yéeweeku su la neexee xaar nag def fa trois jours ah man nag ba ma ko defee man daa faa xaar trois trois jours man ndaxte xaw man sama yëfu moom gannaaw man seetu ma xam naa ko ndaxte ah bu la fekkee ne seet nga demal moo tax yàlla mu nag boo ko defee fala ismaali yi bu la ta boo defee taaxir ba def ñetti fan fala taax ismaali yi kon nag lii moo tax nag xaarif moom day xam ne moom nag dafa bëgg nag set wécc ku xam nag setoon nga ci moom bu la neexee ku mel ne bàyyi bu ko defee moom boo ko def def na ñaari fan def fa ñetti fan ndaxte ñun ñoo gën a xam ne moom alhamdulilah nasatu taay man damaa juddoo set wécc kooku yow nga juddoo tilim boobu ba leen bokk dafa am yoo xamante ni yow yaay seetlu moom lii man man bokk ma a judd de ki juddoo set man ma juddoo tilim tilimaat. kon nag moo tax nag boo dikkee <coughs> nga di la sànni ko su ko defee juróom-ñaar juróom-ñaar mu nekk laal mu nekk quatorze quatorze quatorze boo dikkee boole kook sept lu muy in lu mu la indiaat vingt un kon gis nga kon def nga vingt un hmm? nga dikk defaat vingt un muy lan quarante deux nga dikk defaat vingt et muy lan mu nekk trente trois ah waaw cent trois kon cent trois soixante trois muy juróom-ñaar fukk juróom-benn fukk ak ñett yonent bi lu mu doon ci at juróom-benn fukk at ah, ah sa sa yonent gi mat ne yow yaay yonent bi yonent bi lu mu tekki du jigéen mooy nit kon la ndeke sa nit yi gii nag. fii nag ci nga amee dund boo xamante ni al yawma akmaltu lakum diinakum ñu ne ci aj gala ca Arafat waaye nag bi nga dikkee fii nag fi nga matal nag dund boo xamante ni dara desatu ci yow juróom benn fukki ah, xeer ah sànni nga ko nag juróom ñaar yi nga sànni woon nag mooy sa butoon yi sa biir yi ba nga dikkee nag nga jël nag dund bi nga xam mooy biti nag mooy juróom benn fukki ak ñett kon lii ah moom su ko fee kon gis nga kon aji makka man nga wax ne kon nag dikk naa kaaba ga xarmal naa kon mooy armal araamal naa lu yàlla duma ko laal duma ko jublu duma ko topp nga dikk nag ci kaabaam nga nekkoon ko yow mii yow rek yow laa xamante ni sa melokaan yi ni nga mel dong laa bëgg a mel ah nga dem nag dox Safa ak Marwa nekkoon nag sa diggante bii bëgguma ko génn ndaxte boo génnee ci diggante ëpp yonent bi kii foo jëm diggante Safa Marwa mooy Muhammad yi ak Ahmadi bi bëgguma ko génn mooy lan du ma génn sariya kon lii doo génn diggante boobu da ngay nekk diggante war ndax sa ndax ko juróom-ñeneen pour ko man fii kay moo tax Isaa Saara Isaa Saara xëy na surtout wara oo kër ngi dox nii moo tax bàyyi ne man li tax may aji màkka foon fu ak jaar fu mu jaar ci ci gën a neex demee. ah loolu ngay dem nag nga def loolu nga daal di ay nag sa adi bi moo tax fii nag fa ma ayloo ilaa baytil xatiq moo tax ba eh, gàtt ba ngay rey ca eh, fële xat yu lañ ko tuddee xat yu mooy lan njug bi ngay rey fii ñu tuddee ko tabaski mooy asiyatu kon nag yow bi ngay rey fii boo demee fële na nga ko reyee fil baytil atiq fil baytil atiq mooy néeg boo xam ne boo fa reyee sa bopp da am indépendant total moo tax lan moo tax foofu koo dem reyoo sa bakkan foo reyee sa bakkan te reyoo ko ci baytulaay mooy pays boo xam ne dafa am indépendant dara amul nga am indépendant total foo nga reyee sa bakkan ah, kon ngeen la ko ci pays gore boo reyee ngeen la waaye bool aji pare di kër a jaamu nit wala ngay jaamu bakkan boo dee aji màkk ba ñibbisi ngalawaay jaamu ki nga xamante mooy moom rek mu ne wajatu nafsi inda baytillahi man Ibrahima Niass moo dikkee sama nafsi balaa fekk ci inda baytillahi sama bakkan ba da ngay seetlu de wajatu nafsi inda baytillahi ma fekk naa ma nga toroxoo wal qalbu xayraay sama xol nag benn foo nekkatu ci ba ma dikkee ci baytillahi ba damaa dëkkoo toroxlu wàcc sama bopp nag. lépp luy ay font jaar sama xol bi lii mooy xaj xaj boo xam ne boo ko ajee dangay toroxlul yàlla benn caaxaan nekk caw kon nag waqat sa aytu min safalil marwa ma il jamaatu uniltul xalwa waqat sa aytu dox naa min safalil marwa de marwa maa ngi ànd ak mbooloo seetal uniltu may nañ ma alxalaw wiy taay maa mbooloo ànd ñu ne ko doon waaye wéetaay laa fa gis man gis ma fa dara dara dara dara damay wër dem ànd ak booloo bi ñu leen bàyyi bàyyi ànd ak ñun maa bàyyi ajoon gis ma kenn ah, ujiba daawati wa saalal matru istama sa'yi wa usilal kadab loolu moo tax ñuy aji ujiba nangu lañ daawati man la doon ñaan ca ajja nangu lañ ma sama ñaan ko duñu ko lu tax mu ne wasaalu ma tur bàyyi def bàyyi ba mu defee taw ifaad rek yàlla asamaan sa xiir lu gën ci sa sa uriya mooy taw mu ne taw bay wàcc moo tax yow mii war nga boo xajee màkk ba pare nga yëg nag xéewali yàlla ñi may sotte ko mooy taw bi nag bon boo ji taw saw saay lii de mooy aj yaa xamante waaye nag dem na Madina moom mbaay ndaxte foofa madina mooy foo xamante ni mooy mat diina pour nag diina ci man moom dangay dem Medina ndaxte fële mooy péyeb laahu ba mat nag mooy péyeb Muhammad ba kuñ sant ka el foo boo demee fële danga dem kon fële bàyyi nag <clears throat> boo gisee bokk nag nit ñi fu muy dem gaa yi nañ ne bu ñuy séeri ñu siyaare ji Medina mu ne dañu wax ne ñu ngi siyaare ji ma mm, jàkka ja waaye bu ñu wax ñu ngi siyaare yonent bi bàyyi na déet man de képp koo xam dëkk dëkk bi di siyaare keneen na dem waaye man de yow laay siyaare yow Ahmad bii du ma dem ci kenn de kon nag nañ fexe ñun ñëpp suñ aji màkk gi nañ ko teg ci yoon suñ tabaski bi nañ ko teg ci yoon surtout nag tabaski bi aji màkk ñu ko def bari waaye tabaski ñëpp koy daan su ma kër gu ne nañ ko def waaye nag ngalawaay li ngeen ko diggee nii yéen ñi bokk ci malben maa ngi leen di ñaan tëbaskin wii rey leen te reyee ko nii ku ci aji màkka na nga aji màkka te ajee nii ah nga armal araamal lu yàlla doo ko doo ko topp nga dox Safa ak Marwa di nga xam ne mooy jikko yi nga xam ne mooy jikko yi nga xam ne waa ji lamboo seetal booy wër kaaba nga xam nga léegi sa xalqee bi càmmoñ nga koy wëree nga xam ne kon noonu nga ko joxe lii moom nga koy wëree su ko defee nag kon nag kii moom melokaanu xàq ya moom baax na melokaanu xalq yi dina nga bëgg a dindi loolu tax koy dindi ko sànni da ko sànni per da ko sànni per per ba nga sànge nag nga jël melokaan melokaan mooy melokaan borom néeg lu mel nag nga làmbaayoo ko nag loolu mooy aj boo xamante ni yaakaar naa ne buñ ko ajee aj gi dina nangu kon nag aj kenn ku ne xam na kon teraanga ci nekk ak ngëneel bi ci nekk ak tukki moo xam ne tukki touriste la boo xamante ni mosu ko tukki fenn dem foo xamante ni yonent bi tegoon na fa bakkanam nga def fa sa bakkan wala nga teg fa sa loxo fokkante wala fa ko fii dem ba ci Makka nga dem Medina fa nga xamante ni yéen nekk may toppoon ko rob tey loolu daal waa mal Malben gudd na waaye ñu ngi balu ak yal na yàlla boole baal ñun ñëpp yàlla nañ bokk ñoo xam ne am aji Makka aji guñ nangu yàlla nañ tëbaski tëbaski boo xam ne bu tegu ci yoon la boo xam ne dañ ci jëriñu saa yi noo bàtt اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الملاقي ولا إلا صراطك المستقيم ولا آل قدر من قدر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله